thank you campagne bu yaatu si wàllub kaaraange yembal wér-gu-yaramu askan wi moom la district bu Touba amal nag jublu si ngir xeex ak jàngoro yi ñu duppee maladie tropicale négligée di nag ay xeetu feebar yoo xamante ni moo ngi commencé law si région de Diourbel bu nu sukkandikoo si médecin chef district sanitaire bu Touba docteur Mamadou Dieng mii nag di leeral lu tax a jóg campagne bu ni mel ak tamit jàngoro yooyu ñu nemmeeku nii yab na askan wi nan la ñuy feeñee ak seen ay jeexintal. feebar yooyu bi ci jiitu nekk euh, filariose lymphatique ak tamit schistosomiase yi ak géohelminthiase muy feebar yoo xam ne dafa nekk ci biir askan wi. ndax feebar la yoo xam ne ku mu dal du am metit du am dara léeg-léeg su demee bañ koy nemmee ku fekk na jéggi na dayoo. waa feebar la boo xam ne day joxe li ñuy wax tànku ñey mooy tànk yooyu nga xam day mel ne benn bi day ëpp ba ca des. ba pare di dem bay xaw a jéggi dayoo mu xaw a niroog tànku ñey comme ni ko wolof waxee dina indi tamit lu ñuy wax xuuxaan mooy indi euh, maanaam ñun li ñuy wax grosse bourse maanaam day indi nit ki ci awraam day dem a dem ba dafay euh, yokk ba xaw a jéggi dayoo ba mel ne saaku boo sol dara su ko defee wolof mu ko tuddee xuuxaan am na jigéen ñoo xam ne da leen di dal mais ñoom daleen di yóbboo seen benn ween di màgg di màgg bay jéggi dayoo su ko defee feebar boobu liñ ci gën a miin mooy tànku ñey waaye day laal yeneeni i cër di fa indi ay yàq-yàq loolu mooy filariose lymphatique filariose boobu nag ab yoo moo koy joxe yoo bi mooy jële doomu jàngoro bi ci nit ku ko am matt keneen jox ko ko kon ngeen war a xam ne ku bëgg aar sa bopp ci feebar boobu war nga ci taxaw jël ci doom yi te di fexe di jëfandikoo ay moustiquaire ba tey bu nu sukkandikoo si docteur bii doon jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi gis na ni jàngoro jii de doon na une réalité te nag mi ngi si biir askan wi jóg taxaw temm jot na ngir képp kuy borom kër képp kuy kilifa nga mën a ànd si xeex bii. garab bi nga xam ne mooy xeex wàllu filariose muy ivermectine ak garabu saan muy albendazole moom la ñuy wër di ko joxe ci kër yi muy ay garab yu am solo ndax dafay tax ba feebar yooyu ñuy wax tudde leen maladie tropicale négligée ñu fexe ba jëlee ko fii ci Touba euh, tàmbali nañ campagne boobu démb ci talaate ji tàggat nañ ay ndaw ñu leen di wax ay relais ngir ñu dugg ci kër yi. Euh, waxtaan ak boroom kër yi ngir jox ko xale yi ak mag ñi ndax garab yooyu dañ koy jox xale ak mag ngir aar leen ci feebar yooyu nga xam ne moom la ñuy wax filariose lymphatique waaye nag docteur bi mi ngi sàkku si borom kër yi kilifa yi ñu yor kàddu rawatina ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor daara yi si Touba te nag ay xale nekk fa di jàng nanu ubbil seen buntu équipe bi ñu yebal bu ñu ñëwee dina leen expliquer leeral leen li doon seen tànk te nag sax du leen lu dul aar rek askan wi. tàggat nañ nag ay ndaw yoo xam ne dinañ dem ci kër yi waxtaan ak nit ñi ngir jox leen garab yi ñuy ñaan di sàkku ci borom kër yi ak kilifa yi yëpp. ñu fexe jàpp ci ba seeni njaboot jël ci garab yooyu ngir aar seen bopp ci feebar bi nga xam ne moom la ñuy wax filariose lymphatique ñu ngi sant bu baax ci taxawaayu kilifa yi di sant bu baax ci taxawaayu kuréel gi nga xam ne moo jiite sëriñ daara yi ak sëriñ daara yëpp ñu ngi leen di sant bu baax ndax gis nañ ne euh, xale yi ñu ngi fexe ba ñuy jot ci garab yi ndax daara yu bëri dem nañ fa waxtaan ak sëriñ daara yi ba ñu ubbil ñu seeni bunt ñuy ñaan sëriñ daara yi nga xam ne xëy na yëgaguñ ko woon wala ñu ngi koy soog a yëg ñu fexe ba ubbil xale yi seeni bunt ngir ñu mën a ñëw jox ndongo yi ak tout tànk yi fa nekk ak mag ñi garab yooyu nga xam ne day aar nit ñi feebar boobu ñu tuddee filariose lymphatique ak aar leen ci wàllu saan campagne bi nag ubbeeku na si biir Touba ak li ko wër diirub ay fan ay ndaw jéem a dem si biir kër yi aar mag ñi ak ndaw yi ndaxte nag jàngoro ji amul at loolee nag docteur Mamadou Dieng médecin chef district sanitaire bii la mu gis mooy ñëpp war nañ see dugal seen loxo ba nu mën a xeex ak les maladies tropicales négligées